Ngouda Fall ñu ngi lay nuyu. waaye man lay fay madame Kane. am nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tay bi fàttali ne yow nekkoon nga inspecteur général d'État jiite woon nga fii tam Centif euh, ñu am mbégte lool dalal la ci matinalu tay bi mais maa ngi lay sant madame Kane. Euh, di kontaan également ma intervenir ci matinal bi la alors ñu tàmbali ak euh, IGE mi nga xam ni nekkoon nga fa ñu jëbal ci ndoxteelu ay bés bi ñeenti rapport président de la république muy 2016 ba 2019 amul mbetteel nag ay njuuj njaaj ak i gis nañ ko ci ni mu daan demee at yépp mais tey laaj bi mooy est-ce que amatina njariñ euh, ñuy def euh, enquête yu ni mel ndax euh, vérificateur général bu ñu demee lu ñu mun a gis tamit bu ñu ñëwee en général ay sanction du am maanaam ñi def loolu dara du leen ci fekk yow ci laaj boobu loo ciy tontu. non je crois que li may ciy tontu mooy il faut ngeen def la différence ngeen xajale rapport yi dafa rapport yoo xam ni inspecteur général d'état yi bu ñu demee mission moom la ñuy kooku mooy rapport inspecteur général d'état inspecteur général d'état bi ci boppam moo koy signé bu fekkee ne baax na vérificateur général transmettre ko président de la mu ànd ak ay recommandations la mu gis ak la mu bëgg ñu def ko ci loolu mooy rapport inspecteur général d'état loolu la nit ñi naan nañ ko déclassifier loolu loolu mooy rapport inspection générale d'état rapport bii ñu jox euh, président de la république rapport la buy récapitulé c'est-à-dire buy wone inspection générale d'état ci at mi lan la liggéey lan la liggéey mais tout ci rapport boobu la euh, sukkandiku pour euh, topp madame Kane ne def na nangam déedéet am na benn rapport bu ko jiitu rapport boobu mu ngi ci président approuvé na ko li li ñu bind ci rapport yi am na li li ñu bind ci rapport de gouvernance publique bi mais rapport yu bari yi ci nekk yëpp presque le président approuvé na ko jënd na donc il faut nag ñu informer ko pour woon ko def synthèse bi dañuy def synthèse rapport de synthèse la voilà rapport de synthèse la dañuy def synthèse bi c'est-à-dire sept éléments yi gën a am solo woon ko pour loolu mën koo dimbali mu xam lu mu mën a euh, euh, doxalee administration lu mu mën a ëllëg bu amee lu muy def ba lu ku muy nommé ba lu muy euh, war a changer mu changer ko loolu da jàppale ci ni muy jiitee Sénégal loolu rek la rapport boobu loolu pratiquement mooy mission am hmm. mooy euh, objectif am plutôt mooy objectif am jàppale ko ci ni muy war a gérer réew mi jàppale ko ni mu war a gérer alalu réew mi lu demee noonu mais rapport yi nga xam ni moom la ñu tudd ci rapport global boobu li rapport yooyu président jot na ko bu yàgg ba ba ba approuvé ko am na ci rapport yoo xam ne approuvé na ko après presque yëpp approuvé na ko yi nekk ci rapport rapport boobu yëpp approuvé na ko ah, rapport bu ñu approuvé gul mën nañu koo def ci rapport global. d'accord waaye tey rapport global boobu information rek la ni koy président di di gisee yow boo duggee ci net bi noonu nga koy gisee. mais léegi retard bi nga xam ne dañu koy seetlu euh, ci yéex a fësal euh, rapport yi euh, yow noo ko gisee. non non non y' a pas retard aussi il faut ngeen def attention. dama ne la ñaari rapport ñoo am. rapport bi inspecteur général d' état bi di def ba pare mission kooku amul retard. dafa am ay délais yoo xam ne dañ ko koy jox bu délai bi jotee ah même bu bëggee def bu bëggee tardé vérificateur général da koy woo ko mais foo toll ci rapport bi. rapport boobu il est transmis régulièrement rapport yi dañ koy transmettre pose bu ne président de la république. maintenant rapport bi c' est un rapport annuel. gaa am na retard. que boo xaaree ba pour u mille vingt nga bëgg a présenter rapport annuel bu deux mille seize kooku amul am na am na retard. Hmm. loolu quand même euh, du lu loo xam ne du li gën du li gën et inspection des gens d'État ñoo xam lu tax loolu am mais li ma mën a xam mooy du li gën te war nañoo def te sorte que bu ëllëgee ñu moytu loolu ñu moytu retard yooyu lii di am. buy année bi jeex rek ñetti weer yi topp ba ñeenti weer yi amoon na bi au plus tard juróom benn weer yi président war na mën a jot rapport global sur la rapport sur la gouvernance publique bu inspection générale d'État rapport de la cour des comptes rapport global de la cour des comptes bu euh, bu cour des comptes loolu dafa war a mën a nekk il faut ñu def ko il faut ñu def ko bon seen liggéey nag bari na moo tax ma ni man maa ngi proposé vérificateur général mu seet noo xam ni mën na fab cabinet boo xam ni mën na ko dénk rédaction rapport bi rapport global bi ça ça ça loolu moo leen di permettre ñu continuer seen liggéey ñoom kooku defal leen rapport boobule. Hmm. bu bu jotee mu deloo leen ko. kooku rapport de synthèse rek la rapport de synthèse la waa ji bu ki koy jox bu koy def. bu koy bind dañ koy def engagement de confidentialité. li nekk ci rapport bi du ko génnee du ko kii du ko wax tant que président la république jotu jotu ko bu génnee moom moo ko kooku mooy engagement de confidentialité. d'accord donc mën nañ ko externaliser jox ko keneen mu defaral leen ko. loolu c'est une c'est une proposition. d'accord est-ce que mën nañu cee dégg ne kon y euh, yi doy ñu ca IGE. non inspecteurs yi doy ñu moi je crois que aujourd'hui li am solo mooy ah inspecteurs yi li leen war ñu ngi koy def mission yi ñu war a def ñu ngi koy def. Hmm. ils sont au de trente aujourd'hui ba une trente et quelques ñu ngi koy def y a y a que IGE y a la Cour des comptes. Hmm. Cour des comptes aussi dafa am mission de contrôle organe de contrôle la. y a également l'inspection générale d'État. bon naa ngi dégg souvent ñu naan OFNAC code OFNAC du corps de contrôle il faut que les gens arrêtent OFNAC du corps de contrôle l'OFNAC est un organe dédié à la lutte contre la corruption du organe de contrôle warta contrôle du organe de contrôle ça je le dis et je le défends donc euh, euh, euh, ici à Cour des comptes ñooy les organes supérieurs les institutions supérieures de contrôle de l'État Cour des comptes avantage bi mu am ci IGE mooy day def contrôle juridictionnel en même temps contrôle non juridictionnel waaw c'est-à-dire mooy contrôler les comptes des comptables publics moo koy jugé yaa mhm. euh, par exemple euh, euh Cour des am na ko mais euh, IGE ay mission mission yu yaatu la même mission lutte contre la corruption IGE am na ko. ah oui ça je vous dis IGE am na ko ça fait partie de ses missions générales. léegi ñu dellu si ci rapport yi ak euh, li muy fësal yëpp euh, at mu jot euh, ñu gis ay luubal ak i njuuj njaaj te du mujj fenn est ce que tey kon solution bi nekkul di jéem a gàttandu mbir yi xëy na teg ay jumtukaay yoo xam ni dana tax du ñu yegg ci yenn ampleur yi ci corruption ci luubal ci ay détournement yu ni mel ndax gis nga ay solution justement jëm ci wàll boobu. waaw xam nga madame Kane dafa am ku ni philosophe bu l'effet de la contagion contenu dans l'exemple gis nga li am solo mooy bu ñu buggee xeex détournement de deniers publics bu ñu buggee xeex guerre bu ñu buggee xeex leneen hein il faut ñu seet ñi nga xam ne luubal nañu ñu sanctionner leen ba Sénégalais yépp xam ne sanctionné na leen buñ ko defee dina décourager ñeneen ñi mm-hmm. loolu rek il faut il faut que ces gens-là soient sanctionnés ma man loolu la gëm quoi il faut que les Sénégalais soient qui qui ont commis des fautes soient sanctionnés. mais sanction pour mu am tamit foog kii sanctionné bëgg a sanctionné maanaam moom volonté politique. waaw mais je suis d'accord moo tax ma la il faut ñu sanctionner et sanction bi day impliquer ñu bari il y a la volonté politique mais il y a également l'action judiciaire il faut aussi que les autorités judiciaires puissent prendre leurs responsabilités. il faut que les autorités politiques puissent prendre leur responsabilité. même justice boobu aussi euh, sëñ bi kan faaw mu moom boppam ba mun a def yenn yi ndax lu ci bari dañuy dégg magistrat ci seen bopp ñoo koy dénoncé ni euh, état wala exécutif bi dafay dugal loxoom si ay dossiers yoo xam ne finalement dañ koy mujjee tekki suuf wala sax da dul jóg bay yegg fenn. mais madame Kane madame Kane nit ki aussi du ñu fab indépendance yow constitution nee na la am nga indépendance. Hmm. constitution loi bi gën a rëy ci ci ci Sénégal. moo ni la tu es indépendant tu as ton indépendance nga ni man du ma indépendant lu ñu ma wax rek loolu lay def kooku man aussi ma ci. Mm. bon quand j'étais man du ma nekkee président la CENTIF am na ay dossiers yoo xam ni li am na lu ma boole ñu bari dañu ma boo ko laal ma ne ko dama koy laal jot naa dem jot naa jot naa information bi dinaa ko laal ba keroog fu muy yem way def naa ko man leen bu ngeen bëggee ngeen dàq ma mais dina ko laal parce jot naa ko dinaa ko def waaw. donc il faut aussi que que nit ñi aussi jël seen responsabilité yow jox nañ la indépendance par la constitution defloo nañ la loo ñu ngi lay bëgg a def loo xam ni ne nga àndul ak li nga war a def mais taxawal na li li ma def loo àndul àndul du ma ko def mm-hmm. mais doo toog rek naan euh, euh, je n'accuse personne nag mais doo toog rek naan euh, way dañ ma dañ ma kii dañ ma def loolu lii dañ non c'est pas comme ça on ne gère pas comme ça. waaw mais yenn saa itam bu ñu ko deful euh, ay sanctions mën na leen caa fekk. mais ak ak li mel mm. nit ki da gëm yàlla. Mm. da ngay gëm suñu borom c'est-à-dire li am mooy. li nga war a def rek yow def ko. bu ëllëgee. bu ëllëgee. lu euh, euh, mën a am ñu xam ne def nga li nga waroon def. waaw mais man je connais un procureur du ma noom mm. am na lu ñu ko bëggoon a defloo. dani leen du ma ko def modifier leen loi bi ma doon di ko def parce que yéen a ngi may bëgg a sonal li ngeen may bëgg sant bu ma dégg ba ci biir ay jafe-jafe lay am mu ngi may dégg mu ni leen du ma ko def yéen ngi ma koy defloo te tey ëllëg suba tey ëllëg suba defal lii defal lii te loi bi loolu tant yéen yéen yéen a réew mi modifier leen loi bi loolu yàgg na modifier leen loi bi bu ngeen bëggee ma continuer ci mais mënuma ci continuer damay arrêté du ma ko defati et procureur bi ma may dégg loolu man mii vivre naa ko ah vivre na ko donc il faut aussi que euh, ku ci nekk am lu courage ga euh, ngay euh, courage bu accomplir sa mission ni nga ko war a accomplir. Mhm. boole ko ak gëm suñu borom nag. d'accord xam ni yàlla mooy joxe yàlla mooy xañ. Mhm. léegi détournement yi ak yu mel ni ñoom du ñàkk itam mu am njeexital ci koom-koom réew mi. mais yow tam madame madame madame Kane bu ñu amee ñaari junni nga bëgg lekk junni bi te ñu war a fay ay dépense ñaari junni nga lay leer ni dépense yooyu duñ ko mën fay loolu rek la détournement baaxul ci réew mais corruption gën a garaaw corruption réew la yàq économie bi lay daaneel te booy seet sax détournement euh, délit connexe la bu corruption hein hmm. lépp ci corruption corruption moo gën a doy waar yëpp te loolu am na fii ñu ngi ci zone rouge bi sax daanaka bu ñu sukkandikoo ci Transparency International. waaw am na fii. waaw am na fépp mais. Euh, il faut ñu xeex il faut Sénégal euh, redéfinir politique gu xeex guerre il faut qu'on redéfinisse la politique globale de lutte contre la criminalité économique et financière il faut qu'on la redéfinisse dañ koy redéfinir gën ko jox doole gën ko jox ay moyens waaw gën ko jox doole gën ko permettre lu mu lu mu lu mu gis bu demee justice mu jàll te kenn du ko téye waaw loolu mooy les réformes qu'il convient de faire aujourd'hui jërëjëf Ngouda a Kane ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte mu rëy dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni nekkoon nga inspecteur général d'État jiite woon nga fi itam euh, SYNTIF jërëjëf merci merci merci madame Kane